jëmm ji mooy Mouhamadou Moustapha Guèye nekk ndaw yëngu ci wàllum entrepreneuriat mu ngi juddoo ci Pékin di évoluer ci wàllum création d'emploi ngir jegleel ko ndaw ñi ak entreprise bi nga xamante ne moom la fi teg Moustapha Guèye di évoluer aussi ci wàllum développement communautaire. entreprise bi c'est c'est une entreprise communautaire parce que en fait nekkuñu des businessmen nekkuñu des capitalistes quoi mais en fait dañuy. def business mais en fait dañuy def du social business mooy ñi nga xam dañuy dimbali waale doomu aadama yi si li ñu spécialisé wu moom mooy tout ce qui informatique dañoo spécialisé wu si loolu dañoo spécialisé wu aussi si lépp loo xamante ne nii conception graphique la mooy li ñuy wax infographie defar ay carte visite defar ay flyers defar ay affiche hmm, defar ay banderole hmm, ak aussi tout ce qui est impression numérique dañ koy def bu weesoo loolu aussi tamit dañuy yëngu si li nga xamante ne ni moom mooy sérigraphie lépp luy defar ay t defar ay polo ah defar ay banderole bâche et cetera yooyu yëpp lañ ciy liggéey mais en même temps aussi dañuy defar ay badge dañuy defar ay carton d'invitation voilà loolu daal la ñuy yëngu fi en dehors de aussi dañuy def nag euh, li nga xamante ni moom mooy vraiment ay euh, dañuy def euh, lépp luy saisie ah saisie traitement de texte dañ koy def fii dañuy def photocopie dañuy def classification dañuy def ay conception de carte visite ak badge et cetera quoi comme par exemple badge bi nga gis ni lii c'est le réseau national des clubs jeunes entrepreneurs du Sénégal lii fii la ko defaree et que yii yëpp dafa nekk yoo xamante ne nii ñuy faral di defar si entreprise bi mais hormis ça aussi dañuy def ay formation dañuy def ay formation pour les jeunes parce que par exemple tey on parle vraiment de l'intelligence euh, artificielle loolu tey boo mënul informatique mënoo si mënoo si dugg kon boog ay formation informatique dañ koy def pour les jeunes aussi tamit euh, dañuy def ay formation euh, ay orientation information pour les jeunes en tout cas du nekk nekkul entreprise bi def business pur et mais entreprise communautaire la buy accompagner les jeunes les femmes les populations les retraités si vraiment seen bëgg-bëgg par rapport ak service yooyu ñu fi wax quoi. initiative bi nga xamante ne moom la nas ba pare xalaat bi fan la sokkeekoo. historique bi moom mooy que ni dañu gisoon ni temps yi ñu nekkee xale nekkoon jeune dañoon bëgg ay service yu bari mais malheureusement daaw ñu koon am fi dañu dem ba université di ko fa uti muy ay saisie ah wala ay photocopie 15 francs wala defar ay banderole wala ay t-shirt wala extra ñu ko woon am fii. et que la ñu xalaat nag mettre en place vraiment activité bu mel nii et aussi tamit comme que nous sommes des acteurs communautaires ça fait presque vingt un ans vingt deux ans ñu ngi si développement communautaire et tamit dañoon gis ni association yi jeunes yi femmes dañoon soxla service yu mel noonu wala école yi daaw ñu ko woon am aussi on a saisi l'opportunité pour taxawal vraiment entreprise bi pour mën a def service yu mel noonu gannaaw ba mu dajalee ay xalaatam ak it ay mébétam Moustapha Guèye ci atum 2012 la daal di matérialiser projet ba mu am waaye it taxawal entreprise bu mu duppee Mouhamadou Rassoul. espace communautaire la boo xamante ne nii vraiment xale yu bëri fii la ñuy ñëw def formation di def euh, vraiment euh, di def euh, ay saisies wala liggéey service boo xamante ni bëgg nañ ko def rek fi lañ koy fii lañ koy defee. en fait entreprise bi ñu ngi ko créé en deux mille pratiquement mu naan 2012 2012 lañ ko créer jugee suñu kër ñëw si marché bi. si marché bi nag si laa doon jàppale waa école bi après si lañ ma jox eh, espace bibliothèque bi dafa délabré woon presque après ñu ñëw rétablir ko defaraat ko ba mu baax nekk fa ba keroog mairie bi jël ko pour defaraat ko si la ñu ñëw installé wu fii mais daal ça fait presque plus de dix ans que nous sommes dans le métier et dans vraiment l'infographie la sérigraphie et vraiment l'informatique voilà en fait l'objectif c'est ça c'est de permettre def nañ ko pour ñu ak ñu bari ah. la citer ay tur yu bari yoo xam te yu bari def fi seen formation def fi seen stage aujourd'hui c'est des assistants de direction si ay structures yu mag et que ça veut que ni euh, fii jaar-jaar la rek voilà lantinoor la boo xamante ne nii xale bi daf fiy ñu tàggat ko defal ko formation bu baax ba pare defal ko aussi tamit euh, éducation financière former ko si entrepreneuriat si leadership nan la nit wala mën a comporter woo ak nit tamit nan la mën a téye liggéeyam bu dëgër këcc pour que vraiment mu mun si moom euh, suturawu suturawu si aussi tamit njabootam mais ñun ñëpp xam xale yi bu ñu paree pour ñu am emploi dafay xaw a jafe mais ñun loolu ñun amuñu si problème parce que dañu ne téye fii ba keroog ñuy gis ay débouché ñu mën leen vraiment rek tey jii ndaw yu bëri yi nekk ci département bu Pikine foofu la ñu jaar ngir rekk mën a am formation waaye it ña ca des ñoom ñu ngi foofee di daan seen doole. par exemple ñu fi nekk six lañu six yëpp alhamdulilah fii la ñuy amee seeni i wërsëg comme li ma la wax sànq rek am na si loo xamante nii du nekk xaalis mais ëpp xaalis tey conseil bu lay conseillé. orientation yi ñu lay jox information yu ñu lay jox formé bu ñu lay formé ak téye bu ñu la fiy téye ak li nga fi am loolu moom moo ëpp lépp kon donc fii nous avons pratiquement six employés yoo xamante ne c'est des emplois yi nekk fii et que lu mu dee dee ñoom chaque semaine wala chaque mois wala chaque quinze jours wala chaque fête ñoom dañuy am dara loo xamante ni dañ ko mën a am pour mën a ko dimbale seen bopp wala vraiment dimbale si seen i seen i ci loolee ñu bëri ci ndaw ñi ñi jot jaar ci entreprise boobule di indi ay seede Euh, daare Serigne saaliw la te Serigne Saliou moo wax ne mooy boroom xel koom kon fii xel lañ fi dolli xel mi mën laa jural nga am koom-koom kon tey dañu am satisfaction pour répondre ci li ñuy wax nii ndax fi dañ fiy ñëw euh, di fi indi liggéey mais dañ fiy ñëw tamit di fi gis ay nit ñu fiy liggéeyee dañ fi ñëw di gis ñu fiy tàggat mais dañ fi ñëw tamit di gis ñu fiy jariñoo benn ci man mi nga am te ne dama jiite benn groupement bu mag mu tudd ànd soqale suñu métier projet de formation et de financement des bûchers du Sénégal lu ci bëri tey mun naa ne ci ay conseil am la ñuy doxee ci nu ñuy jàppalee ci wàllu conseil ak ci wàllum section ba ci formation ñiy def ñun nga xam ne ñu ngi actuellement yi waxee ni mu ngi ñuy former lu jëm ci wàllum euh, informatique ak yeneen section finance management lépp fi lañ koy jàngee ci daara ji. tey jii Moustapha Guèye ambition yu mu am moo di taxawal ab kër yi nga xamante ne foofu la mën a dalal ndaw ñi ngir rek mën a wéyal formation bi mu leen di jox. mais hormis aussi am nañ vision bu am suñu kër bëgg nañu am suñu kër bopp sunu entreprise bopp boo xamante ne nii ñun ñooy jënd kër gi hmm? voilà tabax ko R plus 2 après naa la woon projet bi sax voilà tabax ko def ko R plus 2. pour mën a continuer vraiment nos activités et vraiment continuer di jàppale jeunes yi di jàppale femmes yi di jàppale les populations